waaw damay ñëwaat ci olof bi maa ngi nuyu ñëpp euh, téléspectateurs yi di leen remercier di leen remercier euh, man maay Issa Badji euh, man maay wax ci tour personnel hôtel Faidherbe bi yëpp dañoo ñëw tey pour informer sénégalais yi pour ñu xam lu dundu fii ci hôtel Faidherbe situation bi dafa dafa grave parce que dañu amoon ay emploi am ay contrat à durée indéterminée des CDI am na ñoo xam ne def nañu 17 ans 15 ans et même 10 ans dañoo amoon ay emploi stable euh, liggéey ba en un certain moment euh, ñu jaay hôtel bi ku ñu jaay hôtel bi dafa jëloon engagement ne day respecter euh, contrat travailleur yi ñu liggéey un an mu ne day liggéey. te si liggéey boobu la ne day licencier personnel daf ñuy dax te ñun euh, defuñu benn faute man yaakaar naa ne nit ki balaa nga koy dàq day fekk mu def faute defuñu benn faute mu ne day pour pour pour liggéey rek mu dàq personnel bi lissance ñëpp te si licenciement boobu kayit ñu jox ñaari bind ñoo fa nekk si beneen kayit bi. Euh, pour construction et travaux te ñun xam nañu construction et travaux euh, lu mu ci lu ñor lu mu ciy wax ak motif économique si beneen kayit bi ci ñun xam nañu lu mu ciy wax yoon bi lu mu ciy wax si motif économique bi lu euh, mu ko utiliser jaarul yoon parce que hôtel bi amul problème ci suñu préavis bi le vingt le trente le vingt neuf février la ñu waroon arrêté mais liggéey nañu. ba le 22 mars hôtel bi daa fees dell donc amul benn problème amul dépôt de bilan amul amul benn problème amul retard de paiement amul dara te ñu jékki pour travaux ñu licencier 49 pères de famille ñi ñi nga xam ne dañu am ay njaboot am njaboot seen doom yi ñu ngi école ñeneen ñi dañuy fay loyer ñeneen ñi njëkki jékki ñu ne la yow amuloo benn benn liggéey ci loo xam ne teguñu ko fenn. donc dañuy informer sénégalais yi ak wax bitim réew pour ñu xam ñun ci lan la ñuy dund c'est une situation inédite euh, li métti ci situation bi mooy lu tax autorité yi war nañu xool ci situation hôtel Fata bi mooy la situation elle est inédite lii bu jàllee suba benn investisseur mun na ñëw génne société mu jëli même motif yi pour travaux mu licencier personnel. donc on va repartir te xam naa ne gouvernement bi du ko nangu sur la précarité de l'emploi kenn du fi am emploi boo xam ne bu stable donc lii buñ buñ ko bàyyee mu jàll ça va être un précédent très très loolu moo tax ñuy ñaan gouvernement bi mu taxawal ñu xoolaat xoolaat bu baax situation hôtel Faidherbe 49 pères de famille la ñu licencié si loo xam ne teguñu ko fenn